salaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel Senego TV senego.com tey nag ñu ngi fii ci Xayra ci kër Serigne Modou Mbacke Bara Dolly nekk responsable APR ci diwaan bi lool itam ci wàllu politique sëñ bi euh, leen nuyu. ñu di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a taxaw lu yéen waa Senego euh, di ñaan nuyu xalifa général di murit ak mboolem xalifa bu ne ci réew mi euh, di wax ne it yàlla gën leen jàppale ba ngeen am télé yi gën a rëy ci télé yi. dana koy door rek njiitu réew mi bi mu fi ñëwee laata mu fi ñëw sax gisoon nañu yéen responsable yi kenn ku nekk di génn def ay sortie ci xëy na ginnaawal wala ba ñàkk bàyyi xel gu leen ñàkkoon a bàyyi xel ci moom bi mu fi ñëwee est-ce gisante ngeen ak moom ndax waxtaan ngeen. waaw xam nga li ëpp solo mooy loolu seen droit la ñu def ko ndax it euh, boo amee ab secrétaire général mu doon président de la république ñëw ci ab dëkk na mu koy defee ci dëkk yeneen yi rek bala mu fay dem woo responsable yi wax ak ñoom ah fii bu ñëwee war naa woo responsable yi mag ñi ak jigéen gone yëpp waxtaan ak ñoom loolu moo tax euh, ñoom ñu doon def lu mel noonu mais li ci ëpp solo rek mooy bi mu ñëwee ànd na noog moom ci activité yi mi mu def yëpp ba dem ah la ci ëpp solo mooy toog googu nga xam ne war nañ ko def moom ñun département bi ñu ngi continuer di ko demander ba tey bi mu fi ñëwee gis nañ mu ñëw ba ci dëkk bi di wax wax politique Sénégal yu ci bari rafetlu wuñ ko ndax nee naan bi mu fi ñëwee war na mën a wax leneen lu dudd naa fii day mokk yooyu est ce que loolu sax gëm na ni yéen mën ngeen mais xam nga président euh, fu jaar fu nekk faaw yëngatu yooyu jaar fu waaye li ëpp solo ak li ko fi indoon wax na ko ba dem na la la ëpp solo mooy li mu fi liggéey def ko fi ñëw fa sëñ bi ci jëmmi boppam wan ne gis na ko loolu mooy la ci solo waaye nag ay nit lan te day def politique jàpp naa ne kàddu goo xam ne da koy wax soññ ay nitam loolu wàññi ci dara ce loolu ñam ko waxal ñoom la concerne ñi ci des concerne waaye opposant bi moom lépp lu président yëngal lu nekk wala mu jëf ko ci jëf ju baax ay li yowin ñi ngi xam ne nun ko mën a xajamale wala yu mel mais loolu doon wax bu am importance li am importance rek li mu war na ko loolu mooy lépp solo de la ëpp solo mooy ñëw na fii def na ko wax na ko li mu wax ay nitam la waxal ca gi nga xam ne moom la waxal loolu doonu problème boo gisee ñu ne sëñ bi du waxu fi politique waxu fi bu kenn wax politique danoon bu kenn du def politique def politique mooy dajaloo taxaw ay bànqara ak def ko mu doon comme lu mel loolu la bi wax waaye waxoon nag bu kenn wax politique. mais est-ce que nekkul ni moom day dalal président day dalal seen xel yéen mais xam na ni est-ce jàpp moom. maanaam xam na ni ma mun leen di fi fii parce que moom yéen élection ngeen ko gañal ba noppi mu naan dana mu fii dana mokk ko koy mokkal. xam nga seex bi mokkal fii boo ko déggee mooy bilaa bi nga xam ne mi ngi koy def ci réew mi di ko def ci dëkk bi xam nga ñun bala ñuy war a mën a gañe fenn ab naa bu fi nekkee yor ab parti waa parti am di ko liggéeyal la liggéey ca gox ba ak di ko def ca gox ba loolu dafa bokk ci bilan boo xam ni dana ko yokkal ay nit ñoo xam ne dana ko bateel gëm naa ne nag li mu def ci dëkk bi bu fekkee ne dëkk bi delloo nan ko li mu fi jot a def yaakaar naa ne danañ ko wateel parce que li tax ñu koy wateel mooy ca dëgg dëgg liggéey ni ci dëkk bi ba bërki démb la mujj inigré kon kon looloo tax muy wax waaw xam nga du wax troisième mandat man deuxième mandat laay wax sama gëm-gëm sama gëm-gëm nag mën naa bañ a nekk gëm-gëmu ko neen <clears throat> kon li ma jàpp ba jàpp ko ah, ci foofu mooy ah, président ci jëmmi boppam lam bëgg wala lu keneen bëgg ma solo li am solo mooy conseil constitutionnel la ñuy dogal ci kaw lan dogaloon ci Ablaye waat rek loolu la ñuy dogal ci président Macky Sall parce que ay loi la yoo xam ne amul changement buñ ko sensé na cinq ans lan fay la loi ba wax dara du ci sensé képp ku nekk ci réew mi xalaat ne candidat président Macky Sall duñ ko validé da ngay nax sa bopp même ñi nga xam ne ba ci ay jaas nangam sax xam na ne dañ koy validé ndax xamoon na ne bu Abdoulaye Wade bi dañ koy ndax loi bi loolu wax kon tey gëm na ne loolu dañ koy def nag président Macky Sall nag moom bis buñ ko validé it bu defee leneen man mii di wax yow bokk naa ci ña ko ña nga xam ne dañuy gàntal loolu ndax li tax ñu koy gàntal mooy conseil constitutionnel ci boppam moo moo faw moo moo moo nekk ci kaw lépp kon loi la boo xam ne nii bu fekkee ne tey accordé na na candidat wala na kon dafa waral a loolu ñu it ñu ànd ak moom ci loolu bu jàkkaarloog Sénégalais yi yi joxaat ko ñu xam ne joxaan buñ bu Sénégalais yi Sénégalais yi joxuñu ko ñu xam ne joxuñu ko mais am na loo xam ne faw ñu respecte loi yooyu léegi élection yaa ngi ñëw élection maire yi euh, léegi yow moom foo taxawee non fi ma taxawee euh, wax naa ne leen candidature la ci sama maire ci sama goxu village candidat it laay nekk fii laa koy déclaré ci conseil de département bu Mbacké ndax li ko waral ma nekk candidat conseil département bu Mbacké ndax conseil euh, maire bu ñumaan bi moom déclaré naa ko ba pare sama gox. léegi ñumaan yow yow yow neexu goo maire di yóotuwaat beneen. est-ce que doo ah. bàyyi ba jot ci bee doog wax ci beneen ak sëñ bi. ah sëriñ bi cër yi moom nit ñi rek ñoo ko war a jo yore keneen waru ko yor ko du nit ñi nga bis bu set nga gis ab député maire bis bu set nga gis euh, conseil régional député nangam bis bu set it nga gis ministre ba pare nekk maire. maire mais ñoom bii ba noppi doo ko nekk. mais ñaari yëpp du nekkul benn bis wala ñaari fan kon dafa am nu mu tegaloo ba tax ma war ko mën a jël dafa am nu mu tegaloo ba tax ma war ko mën a wax kon conseil département déclaré naa candidat laa ci doon li tax ma nekk candidat nag loolu laay wax. mooy parti bii ma nekk di APR maanaam bokk naa ci ñi njëkk am loo ambition président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre ñu sos mouvement bu tudd Amwad. mu dem créer parti mënumaa dem ma des ci PDS mais keroog bi nga xam ne deux 2012 am na maa njëkk def déclaration wan ne ndax deuxième tour sax demuma eh, demuma campagne élection ma wate ji sax defuma ko maa njëkk def sama déclaration ne ñëw na ànd ak président Macky sans sans condition loolee laa ànd ak moom ba léegi si musuma laaj dara waaye nag lu ne fekk na ma fi ay lii ñu nga xam ne moom lañ wax conseil constitutionnel la mu dogaloon ci cinq quinze article ba quatorze article yi ñu waxoon nga xam ne mandat bi dañ koy wàññi wax ne it maanaam ñu bari ci sëriñ si jamono yooyu di wax na affaire gor jigéen ak leneen ba di ko xeex maa yóbbu trois cent treize sëriñ biir pale quatre cent nangam la woon waaye trois cent treize yi ñoom am accès mooy yóbbu leen biir tale pale ñu ah, yendoo président jullindoo ak moom añandoo ak moom ah ñu soog a uh, dem def suñ campagne mu jox ñu jox ma ñaari oto ak mooy ñu def suñuy campagne campagne yooyu ban ko defee bam euh, bam ba mu jàll mu gaañoo ko moom ci jëmi boppam ñu walide ko mu jàll moom ci jëmi boppam ba ni tànn sëriñ dafa dem ci xalifa yi ñu tànn ñeneen tànnuñu ma ca tey ki yoon kuréel googee muy rassemblement famille de religieux ba ban yoroon taxaw di ko def maximum wanoon nañ cee jël donte ñeent la wala six personnes tànn leen def leen ay ay ay au conseil mais defuñu ko danoo dem laaj yeneen sëriñ ba ci tey jii ci tey guy mbind gi ña fa nekk ñëpp boo ko seetloo ci jamono yooyu ci conseil du ci au bi la woon ñun ñu nga xam ne nag ñoo porte woon combat bi président jëlut ci ñun. waaw loolu moom yàgg na ci yéen Macky Sall Macky moom ànd ak yéen di xeex ak yéen mais bu dee ba am ñeneen lay jël teg leen loolu moom loolu moom dogan ci il faut nga may moom ma wax li tax may def sama candidat mm. loolee ba mu ko tànnee teewut ñun dañ ko rafetlu ànd ak sëñ Sidi Mbacké suñ frère du suñ xarit campagne ba mu gagné ma nangul ko teewut demandé wu ma dara ñu wàññi ko continuer ñu dem ba élection législative yi jot président dikk woo ma ma ñëw mu ne Abdou Gaynde Fatma man lañ ko wax ne moom lay tànn mu tànn ko ma ñëw ànd ak moom campagneal ko ba campagne bi jeex kan laa jàkkaarloo samay frère campagne bi jeex keroog ba mu tëj campagne bi sama kër gi la ko tëjee plus de 1 million ba dépassé ko ci après après ak ñi mu àndaloo jox leen ko. ba muy dem mooy yan ko joxoon yépp ci parti bi amut lenn loo xam ne nii yëkkati na ma na ma ko jox ma ñu nga àndal ca mboolem campagne bi lu ma def maa ko génnee ci sama mooy def ko ma ànd ak moom ban gañe ko yëmu ci mu dem toog këram kenn ci ñi nga xam ne ci liste bi la nekk muy Abdou Mbacké Ndaw ma ànd ak moom ak maître boobu ñu dem di def recours ngir kan kan laa koy defal koo xam ne list boo xam ne nekkuma ca ba pare jàkkaarloo sama rek ngir plan défendre sama couleur parti kon ñun baaradu lii moom lépp lu nekk nekk nañ ci lu nekkul ñu ci buñ ci nekkee dañuy dem ba jeex loolee ban ko defee samay rakk jàll ma ñaana leen yàlla mu gën ci ñoom ca parce que am na quelque chose boo xam ne lu am importance la foofu ci signal ma ma koy wax fami baara dooli moom lépp loo xam ne jiitan ko ci politique yàllaa ci def loolu ndax nit ki mënoo nongul Serigne tubaa ci ay mayam ci mat la bu faw sëy nii yi nga xam ne wax na ko ci dëkk bi ca ñi fi yor politique bi ci dëkk bi dugguñu ci biir Serigne Touba ci bokk ci Serigne Touba kon faaw nit ñi di nongol ne fami sëñ baara dooli moom yàlla am na lu mu def ci ñoom loo xam ne sëñ bi may na leen ko ci wàllu politique kon loolu moo taxoon ni teewut ba président defee loolu ma ànd ak moom jàppale ko tey barki dem ma dégg dégg naa ci ab télé muy wax di di tax waaw taxaw foofu foofu xam moom wax na lim na ay nit maanaam est-ce que moom jàpp na yow doo responsable boo xam ni responsable bu mag nga ci APR jàpp na ni xay na liggéeyoo dara est-ce que tekkul nekkul loolu moo tax tudd la. parce que gis na ñu tudd xam ni. xam nga dafa am lu may wax li may wax nit ki bu fekkee da nga koo fekk ci parti bu xeex jotee mooy xeex bu fetal yi di tàkk ci kaw kawam lay tàkk moom ci jëmi boppam fun na parti bi du fa dem ba 28 bi bi mu euh, rëcc ñoom ak euh, euh, signor ñoom ak dem di taxaw ne kenn du fi jaar mel nu man ci responsable maa fa jaar. ah ba ni attaqué sama ay tay parti bii mu ne décidé ñeenti nit ñi jiite dëkk bi sama tur ci biir ñeenti nit ñooñu lay doon buñ ko fuñ ko tuddee ablaat kat tudd ko moom tudd ablaat Sadaga maa ngi ci biir kon loolu moom moom xam na ko beneen ba ca desit mooy euh, euh, kër ga nga xam ne fa ngay tëjee sa campagne kooku bu fekkoon ne amul ko mën a wax xanaa kay dem xëy na Mbàkke la sant Mbàkke laa sant ca man nee naa ku ci na loolu mooy moo moo ko déranger ci loolu mais li ëpp solo ma wax la ko loolu amul solo non ci politique ci dëkk bi loolu moom c'est fini beneen bi ca desit ma ma ma ma taxawal ko parce que nangu naa ko nangooti ko ca ba ma tey moom moom Cheikh Abdou Gaynde Fatma mu ñëw doon gumba ci ñun nekk ab socialiste ñu jël ko teg ko ci kanam ñu nangul président lu mel noonu te président duutu yëkkatibaat keneen di ko tegaat suñ kanam ci lu kon gëm naa ne bam mu doonee gumba ci politique jiite ñu ñu ànd ak moom ba gumba gi daanee lañ ci am kàmb du ma nanguwaat geneen gumba wala moom gumba googu continué waat du ñu jiitewaat ci kàmb loolu ñàkk fay dem gumba googu bu ko sa kilifa jëlee daal koy déggoo li ma la dama ne la sama kilifa bu jëfee leen ñu àndal ko ak moom ca loola tànn ak gumba gumba googee yaru yatam jiital ñu ba daanee ñu ci kamb ñu génn ci kàmb gi war a doxaat bu ñu tegalaatee gumba man mii maay njëkk a lànk ku koy nangu dama koy lank amaatu non non non non dama jàpp ne moom sax du ko def parce que moom moom xam na politique du jiital gumba bu gumba gi daan mu koy jiitalaat. ko def it nag ndax suñ bu ndax Dédé Fall moom dafa ma boo leen gën a jege njiit réew mi président moom du façon nit ku mel noonu président moom mën nay wéy ci ay ndigal ak ay lobi ay kilifa ngir am lu muy daw lu muy bàyyi xel waaye gis nga bu ko defee ba def ko ba noppi ah cay ñooñee gis ci résultat ndax gannaaw élection yooyu ba mu jàllee ñi ko ci doon jàppale ci loolu ak di ko dugal ci loolu ñu ci bari am nañ kersa pour gis ak moom kon nag ñooñu moom duutuñu ko demandé waat kon loolu taxul ñuy wax kon moom loolu mu wax ne déclaré wul candidat waaye ku ko jox mu gañe ko loolu moom jaaree ko jëru mu di ko wax parce que gëm na ne kenn du ko ko jox ba ba ba mi pertaat wala di gañewaat laneen la ca nekk nag mooy ñun ñi nga xam ne nag gëm nañ ne conseil département bi buñ ko tegee ci suñu loxo responsable yi meroon yëpp ñu dem jëli ji leen boole ci ndaw ñi boole ci jigéen ñi wàcc ci terrain bi bañ di tëdd ba ineer gëm naa ne dañuy gaj dañ koy gagné parce que président liggéey ne fi lu tax ñu war ko. am nga confiance de. parce que dama ñaare tey bu doon wax ci baatin famille Bara Dolly mosu ñoo dem lu nga ñëwut loolu dama koy wax mu leer fii tey ñu jiital leen ñu dem lu nga ñëwut ci baat bu ñu ko doon wax ci baatin mosu ñu ko def beneen ba ci resit ma am ci baatin expérience politique bi ma am. jaar ci dund ko ba egg fi ma egg ak xam gi ma xam tuuba xam ñi fi nekkoon di yëngatu ak jàmbaar yi fi nekk di liggéey muy ay ndaw ak jigéen bu ci président boole def fi bila bu leer nañ waay waay ci dëgg-dëgg kon man su ko gëñut lu may wax ñaari yii rek ay am sëñ bi amuk bëggam président def fi dara ba pare ñu jiital ku xamut kooku moom bu ñu ko defee dañ koy perte te man kun fi jiital ku sant Mbàkke du ko nangu keneen kun fi jiital it bala ñu bala ma koy nangu dafay doon lu may leer nañ waaye parti bii daal dootuma fi gan. waaw yaa ngi bëgg a ji yaa ngi bëgg nekk maire bëgg ji de conseil départemental bu Mbacké am na sa benn rakk boo xam moom am na lu mu bëgg nga ni du ci dal. non waxuma du ci dal am na droit bokkuñuy parti buñ bokkoon parti ma ne du ci dal. mais mënu ko doon ma ne buñ bokkoon parti déedéet bokkuñuy parti couleur parti am lay défendre am na ci droit tey jii buñ bokkoon parti du ma ne du ci dal ndax du ma xëccoog sama rakk mais bokkuñu parti moom parti am lay défendre couleur man sama parti lay défendre sama parti ba may défendre man ki sama jëmmi boppam am naa droit défendre ko kon loolu ça n'a rien à ak sama rakk buy nekk ci kulo parti li ëpp solo daal mooy parti bii ma bokk bokk ko nit man sëñ Modou du Dolly sëriñ laa dégg naa bërki démb sama xarit Matar Diop di ko wax sëriñ si ay suñuy sàng la nangam waaye sëriñ soosu moom sëñ Modou bokk ci sëñ Modou moom am na droit jiite lu ne ci dëkk bii parce que moom ci jëmi boppam kenn gënu koo mën a wàcc ci kenn mënu koo gën a jàkkaarloog ay élection bu ñëwee bokk na ci ñi gën a ràññeeku ci ay élection bu ñëwee ci mboolem élection bu fi jàdd beneen bi ci desit it ku ku mën a def wàllu politique li ci dëkk bi ci bañu ci dara kon kooku moom yaakaar naa moom ba muy wax xëy na dafa généraliser noonu waaye sëñ Modou Bara Dolly bokk ci moom loolu leer na xam na ni ah, ba xam na naa la moo tax bi mu lim eh, jàmbaari dëkk bi eh, di lim ay ñoo xam ne ba jay isma ju ak ñeneen tudd ma ci loolu kay eh, signal la boo xam ne xam na ne na koo xam ne nii xëy na na poids bu mu ko man kon gëm na ni ci maa ko ci jiitu ca nongaloon naa ko laa muy indi man na ma nongo lim man man fii ñu toll buñ ma doon wax ay ministre dama naan nan ko def ministre wala directeur parce que nongul naa ko ne ko war na ko mën a nekk war ko mën lu tax li man mooy politique amul sincérité jàkkaarloo ñëpp na leen nongul naa ah, euh, ko wax ci la kooku ah. loolu moom weesu ko waaye nit day am sincérité ci kaw bu nit nangu ne lii def nga ko ba jàll nga nga ànd ak yow jàkkaarloo ki rakam mu jàll moom ci jëmmi boppam euh, euh, nga taxaw mu nangu cër bu la jox ñu jox la noonu ko def conseil présidence man ki sama jëmmi bopp président lu ma def conseil au conseil euh, euh, euh, ca boobu bokk naa ci ñi ko fondé mais teewul ma nangu ko mais parce que xam naa ne kër la bu may yéene doy na ma mais li am solo nag lii nga xam ne ay gox la na moom damay am droit samp samay ndënd ci du ma ci xaar kenn parce que ay gox la gox yooyu nag am naa droit samp samay ndënd. ok ñu la ko tàggatoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di wax ne président ne gën a bàyyi xel maanaam. ñi nga xam ne ñoo dëkk département Mbacké euh, euh, parce que yàgg nañ ci sonn ci moom ndax tey ji boo xoolee danaan Touba gañe wut wala yu mel noonu ah wala commune maire euh, bu Mbacké waaye naka jekk monde rural bi dañ ko président gañe dëkk yëpp kon jàpp naa ni ñooñit it nañ leen bàyyi xel xam ni ci département bi lañ bokk président da leen bàyyi xel beneen bi ci des bàyyi waale xel dëkk bi ci kaw ni mu ko bàyyee xel ci wàllu lim fiy liggéey moo xam autoroute moo xam ay ay yoon la moo xam assainissement la moo xam hôpital la moo xam jàppale gi muy jàppale kilifa diine yi ci seen activité assainissement fi nag moom may ma ma eggal non def nañ fi 9 milliards ngi liggéey mais li muy jàppale ci ay sëriñ seen i ay xew-xew di leen ci dimbale di leen jàppale ci social loolu kenn du ko tudd ci loolu kenn xamu nu mu toll kon yooyu président ngi koy def ci dëkk bi gëm na ne moom ci jëmi boppam côté bi des mooy ñi fi politique di ko jàppale na leen bàyyi xel xam ne amuñu lu dul moom ci jox nañ ko 68 mille bois ca loolu tey buñ ko génne woon ci présidentielle raw gàddu mën na wax ne mën naa dem deuxième tour kon na bàyyi xel ñooñu ñu ko gëm lan ñu koy jàppale lan mooy ndaw ñi fi nekk ak jigéen ñi ak monde rural bi maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi doon bàyyi xel Senego TV Senego point com ñu ngi woon fii ci Touba Xayra euh, doon amal ak waxtaan Serigne Modou Mbacké Bara Dolly responsable APR la ci diwaan bi ràññeeku lool ci wàllu politique di leen jox kon dig daje ba beneen incha allah rabbi